combat ba grand combat nekk combat revanche ndeysaan diggante licence bu kutaal nduur nduur bu jalañ nekk écurie Ndar gu ndaw kutaal nekk école de lutte Aljuma Diouf nduur nduur ngeen càkkaar lool licence moo leen woon ginnaaw sama gaay di bëggee internet Général TV nan leen rang muy abonné di partager commenter aimer sama gars yi moo ngay dox ci koom Ndoundour a ngi wër licence ku taal Ndoundour Ndoundour licence dox na ci koom Ndoundour a ngi arrière recul la wala repli la wala stratégie la lu ci mun xaw ci kanam tuuti ci xam dara waaw waaw ñoo ngi na round observation licence ngay dox ci kom Youssou Ndour taxawul Youssou Ndour ngi def rotation licence a koy taf licence combat bi licence attention Youssou kenn ko sànjaafoo Isaas taf na ko ci saako ya Isaas mu ngay déclenché coup ci saako ya Arbit Athena, na indiwaat na leen ci digg géew sama gaay ngeen koy seetaan Shen chaîne préférée General TV 100% Kaolack wala nga General TV Pro seen xarit seen doomu ndey Pape General Général wala nga ne Général bu ngaan moo leen nekkal ci micro bi arbitre Wow. waat Youssou Ndour am na benn avertissement Liss a koy topp ba la indi ay déplacement latéral da ko bëgg a vidé Youssou Ndour da ko la combat soog la combat derby la licence ci koom licence daa jeexal combat bi mais licence defal ndànk ci mbir mu am experience la daqewaat na taf nako ci saxu ya day génnam du muy demee licence no nduur ñongay xex amana avertissement licence dugal na ku arbitre wat na len ñu déglu arbitre lu wax deuxième avertissement pour Ndoundour licence amna deux avertissement Dundur amna deux avertissement Dundur amna deux avertissement ki di licence amagul avertissement yag yag yàgg dañuy bëre dañuy daje ay ndaanaan lañ ay champion lañ licence bu ko Koutal mo leen won ginaaw yor sengor bu weex bi ndundur mom ngeen jàkkaar lool njambul xonku la yor Ndour taxawna mo ngi baral wato ba mom Ndour Ndour leen fàttali ne di Ndour mo jël avance kon combat bi mënut ta yomb combat sokla combat derby la ndaysan fi sa jom Lamine Gueye bu kaolak combat sok combat derby acha ndundur la licence ku bientôt 4 minutes de combat dara amagul Ndour Ndour amagum na deux avertissement kii di licence amagul avertissement kon bu ñu xoolee ba fi ñu toll licence moo amagum faveur ci combat bi il fait 23 heures 6 minutes Issa Diom Lamine Gueye de Kaolack sommes en train d'assister le combat le grand combat de lutte qui oppose licence de Koutal contre Ndundur de Dialagne. Licence, le pensionnaire de l'école de lutte Aljouma Diouf. Face à Ndundur de l'écurie Ndargundaou. Nous sommes en direct sur General TV, Samagay. General TV Pro, voilà que des peuples général. General Bungan, moi, le nekal ci micro bi. Di bëggé wa Koutal, ndeysaan, di wa Dialagne wa wa Medina Mbaba, wa deuxième pont di bëgg waa Kaolack yëpp fàttewuñ leen ndeysaan acca cinq minutes de combat sama gars yi dara amagul ba tey ci combat bi diggante licence bu ñu sama kai yi ak ndondur jàppante lisans licence pàdd na ko ndondur bañ na licence wow, na ku ndondur bañ na waaw waaw Ndoundour a ngi bañ waaw waaw sama gaay loolu day neex na ko day neex waaw waaw ba tey sama gaay ci dara amagul dara xewagul diggante Ndoundour ak licence licence daw na jël ko Ndoundour génn na ko licence daw na jël ko licence jàpp na licence a ngi dóor Ndoundour a bañ licence ngi dóor da daanam déet daan na ko licence bu kutaal a confirmé licence bu kutaal a confirmé licence bu kutaal daan na Ndoundour sama gaay loolu moo fi amoon licence bu kutaal daan bu jalañ wala nga ne ndar gu ndaw kon mën nañ na am na 2-0 distance bu Koutal la battu Ndoundour de l'écurie ndar gu ndaw l'enfant chéri de Koutal de l'école de lutte Aldiouma Diouf a battu Ndoundour de l'écurie ndar gu ndaw loolu moo fi xewoon sama gars yi nekkoon fii ci stade Lamine Gueye de Kaolack 26 juin 2022 waa Général TV jëlal leen ko Général bu nga am si micro di leen remercier sama gaay di leen jaajëfal daan leen acca sama moo ngi noon rek muy abone di partager di commenter ndeysaan Général TV Pro 100 pour cent Kaolack la sant waa Koutal di sant Moussa Ndiaye bu baax a baax son président fan si club di sant suma grand sukkum di ko sant bu baax a baax asuma rakk bi Omar ñoom Paul Ah, waa écrit Adjuma Diouf sant am ah, waa écrit Adjuma Diouf bu baax père Masor ki ah, père Gonde maa ko bu baax a baax waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp sant mbay biis bu baax a baax waaw ñëpp maa ngi leen di sant waaw non man tamit la man mbër la est ce que xam naa ko daan xanaa gaa expliqué ma ko après naa laaj gaa yi nan laa ko daane man xamuma ko daane sax. saa caaga mënu ma ni laa ko daane moo lay ni laa ko daane damay fenn. non xaw ma man lu may bëree moo gën xaw ma xaw ma nu ko daanee après gars yi dañ ma expliqué noo ko daanee waaw. non parce que xamante nañu xamante moom xam na man xam naa yàlla xam na boo gisee ma jël ma am na koo jëloo combat ba sax mu nekkee ñu mel ne ñëw taxaw ñu bëre maam moom. Double Tyson moo ko ngem moo ko jëloo combat bi ñu bëre maam moom. Double Tyson moo ko jëloo combat bi moo nañoo ñu bëre maam moom waaw loolu lamb la waaw. maa ngi nuyu ñëpp nag jaajëf General TV, don't give me that, give me a whole